asalaamaaleykum mbokku internet Leewtoo bi ginnaaw ba ma leen nuyu di am contentement ak mbégte jano génn chaque jour ngeen li gën a fës bopp xibaar yi ci noonu nag dama nuyu sama gars rek daal di ñëw jukkil leen li gën a fës ci bopp yi. tey nuyu tey tey nuyu woo borom kër gi de. borom kër gi damay dikkale ay vendredi ak ay laa koy nuyu. <laughs> jërëjëf Ndeye Mbacke nuyu naa la bu baax a baax wante nuyu suñu mbokk internet yëpp yi ñuy topp ci Leewtoo TV di ñaanal bu baax a baax a baax kilifa diine yi jàmm ak salaam di ñaanal ñu tawat nekk ci lalu hôpitaux yi wala ñu tëdd seen biir kër yal na leen yàlla yëkkati ci jàmm ak salaam ñi caabi féetee gannaaw yal nañ fa génn ñi jiitu ci këru dëgg yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax suñu borom yóbbu leen ci àjjanaam yu kawee di ñaanal képp ka xamante ne bi jafe-jafe mi ngi sa bopp yàlla na ko yàlla saafara ndax dama koy faral di wax problème bi nekk sa bopp ngay dox ak moom bu wàccoon say tànk yaakaar naa doo jóg ba naan da dox yal na yàlla saafara jafe-jafe yépp yi nekk ci bopp doomu aadama yi. amiin Assane Waalo nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. mu ngi noonu nag revue bi Ibi Jallo moo leen koy may mercredi 24 mars 2021 journal suñu làmb bu mu xëyee ci xët bu njëkk Gaston Mbengue présente ses affiches le 4 avril Balla Gaye 2 B52 de Mbour Sa Thiès Moussa Ndoye Pakala ak Forza Mbaye Babacar waaw gannaaw gis nga gannaaw père Gaston Mbengue la Don King de l'arène euh, comme ni ma koy waxee gannaaw ba mu xuufee paa bi xool combat yi nga xamante ne bii moo gën a neex ci euh, saison bi mu daal di koy taxawal ma ngay wanewaat affice da nga xamante ne bii moom la taxawal nag Assane ñëwaat na ci bu baax a baax. dëgg la Mbaye Babacar Gaston Mbengue mu war a tëgg première journée am le 4 avril bi mu war a dox ci diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers 2. ci combat boobu nag euh, gason Mbengue dina ko dina fa profiter présenter affice yi nga xam ne yëpp taxawal na leen mu dox ci Balla Gaye ak euh, Sa Thiès ak musandooy Ndoye waaye Pakala ak Forja journal suñu làmb ne ne euh, Balla Gaye ak Bombardier dinañ fa def benn face à face Sa Thiès ak Moussa seen seen premier acte dinañ ko posé ndax euh, c'est boobu mooy seen première fois ñuy jàkkaarloo waaye dina fa également lancer revanche bi di war a dox ci diggante Pakala ak Forja ndax ñaan yi daje woon nan le 4 avril 2012 mais Pakala moo daane woon Forja donc revanche bi journal suñu la am nee na dinañ ko relancer le 4 avril prochain incha kon daal le 4 avril mën nañoo xaar ténor yëpp yi nga xamante ne bii Père Gaston tëgg na leen incha allah foofu ci arène nationale. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw Lac de ak Eumeu Sène am na également combat Modou Anta ak Diène Kairé donc ak affiche yi euh, le 4 avril nan naa neex. incha allah mooy noonu nar naa neex ba tax na père père Gaston meeg nee na cin bu naree neex mbay su mm-hmm. ku ci nekk sa koñ mbay. mu ngi noonu ba léegi dañuy des ci combat bi war a am le 4 avril 2021 foofu ci arène nationale te père Gaston tëgg ko muy dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers euh, le 6 mars daañu amal li nga xamante ne bi moom mooy triplex. mars. le 27 mars ah le 27 mars di moins daañu amal benn triplex ba nga xamante ni ku ci nekk sa koñ ngay nekk di waxtaan ak àdduna dëgg la Mbaye Babacar beneen facette la Gaston Mbengue nga bëgg indi ci làmb ji moo tax le 27 mars bi di ñëw mu bëgg a def benn triplex maanaam ñetti fenêtre yoo xam ne nii dañ ko mën a seetaan ci 2STV. li mu koy defee nag mooy Bécaye moom mooy nekk 2STV ci plateau bi waaye Modou mbaay moo koy nekkal Géejawaay ak Lac de Guiers de Malick Thiandoum moo koy nekkal euh, Mbaaw ak Eumeu Sène ñu fàttali ne euh, dernière face à face entre Lac de Guiers ak euh, Eumeu Sène le 30 mars lañ koy def ci 2STV. ma nga noonu nag fan jëm nag mooy Leewtoo point net la mu xëy xamal ni ko mooy face à face entre Modou Lo et Ama Baldé pour le 6 Luc Nicolaï opte finalement la Sen TV bay baax. waaw mi ngi noonu Luc Nicolaï euh, gannaaw ba mu démb bi suñu revue bi yéen a ngi doon yéen a ngi doon dégg ñuy wax 2STV wala fële ca TFM mais finalement moom fi mu tànn Assane moom mooy euh, Sen TV. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee démb ñu ngi leen ko doon wax ginnaaw bi Luc Nicolaï jëlee na 6 avril la war a def face à face entre Modou Lo ak Ama Baldé mu jàppoon ne day waxtaan ak 2 euh, wala TFM mais finalement benn communiqué lan génne démb staffam moo ko génne ne finalement euh, Sen TV la amoon accord pour def foofu face à face bi face à face bi nag 20 heures lay am mais euh, presse bi ñu ngi leen invité non 21 heures lay am presse bi ñu ngi leen invité 20 heures pour ñu placer wu avant que 21 heures face à face bi démarré. ma ngi noonu dañuy desandi ba léegi journal suñu làmb mu ne Modou Lo Ama Baldé lancement du Luc Nicolaï a choisi la Sen TV pour la jàkkaarloo du fils. ma nga noonu ba léegi dañuy des ci journée Luc Nicolaï boobu nga xamante ne bii combat bi mu taxawal moom la ñuy tuddee le combat royal amaa Baldé ak Modou Lo léegi mën nañoo wax ne way wa daanu na mm-hmm. léegi. kon xam nañ ne fi mu toll nii Sen TV la tànn pour amale fa face à face bu njëkk bi war a am ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñoom ñaar ku ci nekk war cee xas-xasloo dëgg la Mbaye ko toujours ci même communiqué boobu équipe bu Luc Nicolaï envoyé la suñu làmb jot moom nee ne Modou Lo Ama Baldé lancement du choc royal Luc Nicolaï choisit la de la Sen TV pour le jàkkaarloo di 6 avril comme ni nga ko waxee sànq rek 6 avril boobu euh, Modou Lo ak Ama Baldé war jàkkaarloo euh, Sen TV lay amee à de 21h ma nga noonu nag drapeau du chef de l' état prévu le 28 29 et 30 mais incha allah à Kaolack Mbaye Babacar. léegi Assane leer na naññ. ku nekk xam na ne daaw drapeau du chef de l' amul. Mhm. di euh, compétition jongante boobu nga xamante ne bii ñiy topp bëri simple dañ koo bëgg. Mhm. fu mu am ci réew mii dañ koy topp di ko seetaan xam na ne nag daaw amul ren jàpp nañ ko le 28 le 29. ak le 30 mars foofu ci dëkku président Bira di Kaolack ndànkaam dëgg la Mbaye Babacar euh, nouvelle boobu euh, Adama Bopp di porte-parole CNG moo ko xamle ginnaaw démb ci ginnaaw lundi bi passé bi ñu génnee seen réunion bi comme ni nga ko waxee daaw drapeau chef de l'État amul euh, ren nag ñu war ko jàpp ci Kaolack mi ngi war a am vendredi 28 samedi 29 ak dimanche 30 mai. ci Kaolack euh, drapeau bi nag nga fàttali ko 14 régions Sénégal ñoom ñoo koy bëree par équipe lay nekk région bu nekk da ngay indi sa équipe. ñu jongante drapeau bi chaque année dañ koy amal looloo tax euh, ren nag Kaolack la nar amee ci dëkku bi Raseen. Mm, di jogante bu neex ba nga xamante ne bii macha allah képp ko nga xamante ne bii da ngay dund làmb rek sa mébét mooy nga fekkee loolu di drapeau chef de l'état. dëgg la Mbaye Bakar ñu fàttali ne dernière euh, édition bi mi ngi amee woon ci Mbour Thiès moo ko gagné woon Dakar 5-0. mu nga noonu nag apte à revenir en compétition à 49 ans Baboy attend Gris Bordeaux et Amanekh Mbaye Babacar. Euh, mi ngi noonu dañuy dugg dem nag léegi ci Baboy la mbëroo di da Fuuta Tooro mbër mi nga xamante ne bii lu ko bët bëtam may lu ko fitam may. li nga xamante ne bii mooy kàttanam wala jëmmam waru ko koo mën a xañ di mbër ma nga xamante ne bii macha allah ni ñu koy waxee tolluwul woon ni gars yi mais gars yi la doon bëreel ba pare di jëflanteeg ñoom daan ci génn léegi nag journal suñu làmb dafa ñëw euh, samp laaj ne gannaaw boo mu amee li nga xamante ne bii mooy euh, daanaka ñeent fukki at ak ak juróom-ñeent war naa mën a dellu si waat làmb ji mën naa xaar Gris Bordeaux wala ama neex ngir jëflanteeg ñoom. dëgg la may Babacar xam nga bu njëkk dañ ne woon ku am 45 ans da ngay jël sa retraite looloo taxoon ñi amoon 45 yëpp arrêté mais dañoo jëlaat beneen décision ne à partir maintenant Euh, mën nga bëre au delà de say 45 ans. looloo tax nag journal suñu làmb ne Baboy bi nga xam ne ne jëloon na retraite retraite am depuis 2017. léegi comme décision bi ñëw na mën na ñëwaat ci làmb ji leneen nag bu ñëwaatee mën naa am kii di euh, Gris Bordeaux wala ama neex ñaari mbër yi ku mu ci am jël waaye nag Gaston Mbengue mi ngi bëgg tëgg combat moom ak moom ak Gris Bordeaux nee na combat boobu moom pare na pour dëgg ko tëgg ko bu ñaari parti yi paree rek moom pare na ñu fàttali ne Baboy. dernier combat am daf ko gagné woon contre ma Mandione mi ngi amee woon le 16 avril 2016 moom nag 2017 la jëloon retraite am. te bul fàtte ne Baboy ba léegi mi ngi entraîné parce que da nga koy gis muy def ak Balla Gaye ay contact yu yu neex. dëgg la Mbaye Babacar ba léegi mi ngi entraîné jël na retraite waaye bàyyul boppam moo tax nit ñëpp yaakaar ne mën na euh, continuer carrière am ba léegi. mu ngi doon nag teree Gaal gi le CNG va fixer un un plafond. mu nga noonu nag terrain gaal gi le CNG va fixer un plafond pour les mises Mbaye Babacar. jaajëf mañ pro kaasu meew bi am na de sama gars yi kaa naan meew wax nga dëgg Ndeye Mbacke CNG euh, dafa dafa bëgg a fixé foofu ca terrain gaal gi li nga xamante ne bii mooy miis dañ fay teg ndax xam na ne teree gaal gi euh, place la ba nga xamante ne bii tëgg fa làmb yombul asam dëgg la Mbaye Babacar terrain gaal gi dafa nekk benn terrain vague boo xam ne ni euh, tëgg fa organi mu am organisation yombul loolu tax yenn mise yi parfois bu fu amee désordre dafay bëri looloo tax nag euh, CNG comme Bira Sène mi ngi woon ci làmb ji dimanche bi passé ci terrain gaal gi gis na situation bi ni mu fa demee looloo tax nag seen réunion bi ñu jël décision ne dañuy def benn plafond boo xam ne nii kenn dootu ko weesu benn mise boo xam ne nii euh, kenn dootu ko weesu ci terrain gaal gi loolu la xam naa ci jamono yi di ñëw dinañ wax ban mise la pour ñu am ci plus d' information. lu gën a leer mu ngi noonu après avoir après avoir tout traité Sa Thiès Garga Mbossé Yékini Junior ni Mbaye Babacar ku amul fu mu fanaan ak ku bëgg ko wéttal tëjal buntu bu leen boole ñoom ñaar ñooñu. ndax ñoom ñaar ku ci nekk dañ doon dox sa combat ak Sa Thiès. Mhm. combat ba mujjee yàqu combat ba mujjul am. kon nag ñoom ñaar Assane war nañoo mën a jëflante journal bi nee na Yékini Junior ak ki nga xamante ne bii moom mooy. Euh, euh, Garga Mbossé combat bi ñor na xoom. dëgg la na Mbaye Babacar comme li nga ko waxee euh, loolu la suñu làmb wax après avoir raté Sa Thiès Garga Mbossé Yékini Junior le combat qui tombe à pic ñoom ñaar ñëpp. bëggoon nañ dajeek Sa Thiès mais seen euh, euh, bëgg-bëgg antuwul léegi nag comme que raté nañ loolu ñoom ñaar pourquoi pas ñu boole leen nee na nag ñoom ñaar ñëpp ñu ngi États-Unis ñoom ñaar ñëpp pour ñu éviter saison blanche lii chance la boo xam ne nii waroon ko raté ñu fàttali ne Yékini Junior mu ngi dóor dóor waar moom nag dernier combat am moo ko daanee woon Garga moom dernier combat daf ko daanee woon euh, moom ak Moussa ñoo doon daje mu jëlee ci victoire bu rafet mu ngi noonu nag Jax fait le bilan de son gala dimanche passé des dégâts matériels chiffrés à 2 millions 400 mille 417 000 francs CFA Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke Jax production ku nekk xam na ne moo tëggoon euh, dimanche passé fële ca terrain gaal gi mais ñëwaat na nag ci euh, yàqu-yàqu yi nga xamante ne bii moo am foofu ca terrain gaal gi bi mu évaluer bi mu xaymaa. li nga xamante ne bii moom la moo fa moo fa am ci ay yàqu-yàqu toll na ci 2 millions 417 000 asam. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu tëggee terrain gaal gi première journée am Jax nag mu ngi def bilan bi journal suñu lam ne ne comme ni nga ko waxee ñàkk na ci 2 million quatre cent dix sept mille francs CFA li nag ay seize yu ndàmb la mu war ko rembourser ah. waaye nag euh, gas euh, Jax moom mi ngi def benn promesse nee dina ñëwaat mais bu ñëwaat dina am plus d'organisation dina ñëwaat euh, ak yoo xam ne nii ay matuwaay yu baax yoo xam ne nii dina permettre euh, combat yi euh, jaar ci yoon. nee nag également ministre Matar Ba war na xoolaat arbitre yi ndax li ni daj ci làmb ji bëri kii na métti na. war na daal def leen benn benn prime supplémentaire boo xam ne nii war na seen seen seen am-am ci làmb ji war na yoo ma nga noonu nag booy jaxaaw école de lutte Samba Diaw de Thiès lam xam ne ci journal bi mooy daan ki nga xam ne mooy Tigre Junior ba pare gën a yéeg bi mu nekk Mbaye Babacar pour mu mën a wëyal li nga xamante ne bii mooy yoonam Assane kii di booy jaxaaw xale bi dëkk fële ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar moom nee na incha allah bu jàkkaarloog kii di Tigre Junior du ko may dara daf koy fallaxe dem yoonam ndax dafa nekk ci yoon te bu Tigre du ko tey dëgg la Mbaye Babacar booy jaxaaw école de lutte Samba Diaw de Thiès battre Tigre Junior et continuer mon ascension noonu la ko journal suñu laa mu titré nee na boo jaxawamee daal fi mu teg bëtam moom mooy Tigre Junior daf ko bëgg daane te jàll ci leneen nee nag xamul Tigre Junior à part ne xam na ne mu ngi écrit Lansar loolu rek la xam ci moom waaye nee na le jour ji du ko téye moom nag am na douze combats am na neuf victoires trois défaites. moo ngi noonu nag journal record lañ jëm après avoir lutté et gagné le 4 avril Tapha Tine met la pression sur Eumeu waaw ah, tafaatin gannaaw ba mu ñamee li nga xamante ne bii moom mooy le 4 avril bëree na ca li nga xamante ne bii mooy suñu borom may ko ndam mi ngi wax ak ah, Lac de Guiers ak ah, ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène di leen xamal ne nag bis bu rëy la ñuy bëree mooy bisu 4 avril. dëgg la Mbaye Babacar 4 avril dafa nekk date symbolique boo xam ne nii mbër yëpp ñoo koy bëgg bëre Tapha Tine jotoon na ci bëre loolu mi ngi xewoon le 4 avril 2015 contre Gouye Gui mu am ci victoire bu rëy a rëy looloo tax nag journal Record ne Tapha Tine la pression sur Eumeu Sène ak Lac 2 ñi nga xam ne nii ñoom ñooy bëre 4 avril bii di ñëw ci combat boo xam ne nii Gaston Mbengue moo ko tëgg. moo ngi noonu nag lu simple lañ nouvelle clé de

am mill mais maintenant ba Birane Sène ñëwee dafa changé affaire yi dafa def euh, vainqueur bi di am 50 pour cent vainqueur bi 35 pour cent les demi-finalistes 10 pour cent quart de finaliste yi pour cent. looloo tax général Malika ba mu daanee dimanche bi passé Caaka euh, Fay mu am 1 million Caaka Fay euh, am cent 700000 demi-finalistes yi am 100000 quart de finaliste yi am 25000. maa ngi lay jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaar yi mbay lay tàggatoo yi jërëjëf Ndeye Mbacke xanaa ni dig euh, daje yëpp bu ci yàlla àndee suba jërëjëf xanaa di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee ci beneen revue de reen jaajëf Ndeye Mbacke di la remercier di remercier Babacar comme d'habitude di remercier waa Linguère di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah mag na nag leen jaajëfalaat bu baax di am contentement ak mbégte indil leen li gën a fës si boobu xibaar yi Assane maa ngi lay kontaane bu baax Mbaye Babacar Magne Pro bu baax a baax a baax Ousmane ah waaw sama xuloowaal mais sama gars yi naan je l'aime sa sa petit là mooy loolu Kébé maa ngi lay béggee Matu Faama Yacine Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di bu baax a baax yaa ndeel borom ndékk wi neex yi leen jox dig daje ba ëllëg incha allah mbokki amateur lamb yi Pape Thialis Faye borom Leewtoo production gannaaw ba mu taxawalee combat bu mag.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 dimanche bi 2000 francs loge 3000 ah mbokk yi lamb jaa ngi noonu Leewtoo production fii ci Joal Fadiouth le 27 ak la 28 mars ku fi ñëw ku nekk da nga màndi lamb